mbokk internautes yi dal leen ak jàmm Birame Souleye Diop nekk administrateur bu PASTEF administrateur national bu PASTEF nag daal dinay xam ne démb caab ab ndaje guñ doon amal ci diwaanu Thiès ñoom waa PASTEF di xamle ni nag ne moom dafa mësata gis ab président de la république boo xamante day menacé président Macky Sall nag noonee mooy loo xamante nag mooy mëninam loolee nag mooy forum saa su ne dañuy gis ne dafay menacé ñi nga xamante ni nag ñoo daal di nekkee ci opposition bi wala bokk ñi nga xam ne ñoo nekkee ci société rawatina nag askanu Sénégal ci boppam daal lay menacé ndax déggoon nañ ko nag ci 31 décembre ba li ñu daal di génn mu waxoon ne moom ci boppam ay bëtam moo dul gis ay morceau yu xonk moo tax ngeen marché fii ba suba takki morceau yu xonk ki paani xonk euh, peinture paani yaag peinture koñña du ko gis du ko dégg bëtam yi ci boppam moo tul euh, ci mbir lu xonk muy wàllum grève moom mii di euh, ki nga xamante ni mooy Macky Sall moo daal di xamle woon lu ni mel ci ay jamono fu mu toll jagleloon lépp lu jëm ci wàllum emploi des jeunes mu daal di nag menacé dem bay dànkaafu daal di ne nag li fi amoon ci wàllum manifestation ak it tamit na mu jéggee dayoo la fi dee ci ay nit ak yàq yi fi am nag moom présent Macky Sall xam ne ni xëy na benn régime de waaye moom ci régime bi nga xam ne moom la daal di jiite nag moom dootul nangoo ci lool di fi am noonu la ko daal waxee ne du ko nangu tey du nangu ëllëg moom mi nga xamante ne moom mooy Macky Sall nag ne xëy na nag fee jógoon ak ñu demoon ba nekkoon à bout moo taxoon moom sax mu nangul loolu waaye mënoon na doxalee neneen te bu doxalee woon neneen ak ay force de l'ordre ak yenn nag euh, yoo xam ne waroon na ko daal joxe ak i digle kon du demee noonu xëy nit ñi duggoon nañ seen kër bu yàgg ku ne dem tëdd ci waaye nag wàllum démocratie lay bañ recul am ci moo tax nag mu bàyyi ñu defee nu ñu mette loolee nag jiyee gim ci indi nag gis nañu ko looloo tax nag saa su ne démocratie ñu koy daal di nag jëmmal bañ a daal di favoriser li xam ne moom mooy anarchie ndax saa bu amee rek genre yi lay daal di jur président bi day daal di retenir boppam force de l'ordre yi retenir seen bopp nag communauté internationale bi ñëpp toog nag di seetaan te bu boobaa lii rek la mën a daal di jur moom président Macky Sall ba mu waxee lu ñu mel nag waa Pastef fi daal di ne nag li nga xam ne mooy menace yi muy daal di def ça ne passera pas Birame Souleye Diop loola daal di wax mu mel ni nag nee na ni maire ba waxee keroog daal di wax ne rek ni ni nga xam ne si noonu la gouverneur mooy keroog rek loolee rek waroon na tax ki nga xam mooy Mansour Faye moom waroon na wàcc ca bés ndax nag yooyu nak wax yu amut nag ñu baal ma ci kàddu bi ndax nag fen sax la ko tuddee waaye nag ñu wodd kàddu gi rek moom daane xam ne ni nag wax yu amul yooyu nga xamante ne Mansour Faye di ministre du transport wax na ko keroog ba ñi nga xam ne ñoom ñu gouverneur yi ñëw daal di koy nag démentir ci ni mu gën a daal di nag rafete waroon na mën a tax rek mu daal di moom itam teggi nombal tànk ban fa xaasa di daal di justifier